joor ak tubaab ba buur si nag ma ba jaxu ba ku mënul xare pour Sénégal na ko ba bu sama TMC wane seen jàmbaar ku nekk seen gàngoor ku nekk seen mbokki baay yeah jàmm réew mi réew yi yàlla la ku lëndëm leer mooy fay say traas nguuru firaaw na teewaat na ngir ñolli seytaan Moussa bàyyiwul ànd ak Souleymane te duñ seytaan génn guñ ci laabirante doy na dootuñ laabirante ñoom si buntu toog diggante jeex na loolu réew mi gëm te foog dem te folli mën ne nga foog ne la folli fal keneen fu gën a far ñu teg askan keneen fu gën leer pour nga noot ñu foog nga jaar suñuy deret jaale suñu bakkan pour bañ gàcce ñu talee def nañ suñuy kàddu def élection sa télé ba doolo la kaa teer nga jox ñu suñuy caabi bale Saalum si salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen bëgge bu wér ñëwaat encore di waxtaan ak yéen ci tolluwaayu réew mi Sénégal euh, lu may njëkk a wax nag mooy di naqarlu bu baax a baax di déplorer l'arrestation arbitraire de Ngagne Demba Touré. Euh, doon na ñu naqari doon na lu ñu metti trop trop trop ba ci kanamu yàlla mais lépp rek lu muy firnde mooy ci réew mu ñu nekk muy réewu bandi du état de droit du démocratie du justice du liberté waaye ay bandi salte ñoo fa nekk di mëne euh, réew mi ci kaw ñu koy naqaru lool lool lool bépp senegale ñu àndandoo soutenir euh, le ngañ dem ba ture comme nu ko nasaraan yi di defee tubaab yi day bi ñu jàppee seen doom muy Juan Branco baro français bi àdduna ci avocat français yi àddunañ nañ ci autorité français yi àddunañ ci ñi nga xam ne ñooy juge ak magistrat yëpp àddu ci léegi nag est-ce que ñoo ñu gën ndey est-ce que ñoom ñooy nitu àjjana yi est-ce que ñoom ñooy ñu baax ñi nga xam ni lu leen laal adduna yëpp yëngu est-ce que ñun ñooy mala yi est-ce que ñun ñooy mbaam xuux yi ba nga xam ne lu nekk mun nañu ko teg te kenn du wax waaye mandat d'arrêt international ba ñu lancé woon Juan Branco bañ ko jàppee ñaari fan teguñu ko ci ñu libeere ko mu dem yoonam ndax fulla ak tubaab yi faydaay tubaab yi nit yu baax yu ñu doon ñoom am fulla ak fayda ba seen doom du ay caaxaan lañ koy jëlee jàpp leen ci ku nekk masim nekk ci justice bi dugal ko ci kaso bi noonu dem seen yoon tëddi ñi seetaan donc ñu woo Sénégalais yëpp ngeen takk seen fulla takk seen fayda lànk na tubaab yi gënuñu leen ci ndey gënuñu leen ci bàyyi ba ñu mandat daree seen doom fulla la ñu àndal ak fayda baro ba yëpp taxaw juge yëpp taxaw magistrat yëpp taxaw avocat yëpp taxaw ñu rayante ba libéré seen doom ci ñaari fan ñun nag tey la ñuy xool ba xam ñun ay ñu ndey ñu seen ndey baax lañ wala nit yu lañ nit yoo xam ni dañoo mérité safara jaxanama ba nga xam ni euh, magistrature ku ci mel ni ngañ Demba Touré un greffier un éminent greffier ñu jàpp ko dugal ko ci kaso yi ba xam sénégalais dañuy toog di seetaan wala dañuy kay bugg a jiiñ lépp ne ko yow def nga erreur waroo fi woon ñëw wala nangam ak nangam en tout cas euh, li nga xam ni moom mooy mandat d'arrêt international bu ñu lancé woon Juan Branco mais daf fee ñëw curux la def fii ci biir dëkk bi ci kanamu nit ñëpp wane boppam ni dem ba Touré moom tam ñu ne ko mandaa d'arrêt international mu ne surux ñëw waaye tubaab yi am nañ fulla ba génn fa seen doom ba yóbbu ko ba protéger ko ba kenn mënulu ko dara mi ngi yeggali ay yitteem donc nag la balle est dans le camp des sénégalais ba xam on mérite sincèrement liñ ñuy teg on mérite musiba jaxanama yi on mérite euh, naqar gu ñuy def wala ñun am nañ barreau wala ñun am nañ ay juge am nañ ay magistrats yu baax am nañ ay greffier yu baax am un peuple tamit boo xam ni peuple bu baax lañ donc la main euh, est dans euh, son sa liberté est dans la main des sénégalais sa liberté est dans la main de la magistrature, euh, la liberté de Ngagne Demba est dans la main du baru sénégalais, de juges et magistrats. Voilà. Euh, ñaareel bi moo bëgg waxtaan ci moo di leen wax ni euh, Macky sàll euh, dafa fekk ñu nekk ci benn processus électoral bu am solo ba waroon dugg ci li nga xam ni euh, moom mooy ñu dem fi nga xam ni moom mooy ñu war a dem élection ñu tàmbali woon sax campagne électorale mu jóg yónnee comme nu mu koy defee israéliens yi ñu ngi fees dell jamono ji Sénégal ñoo xam ne indi nañ leen mooy ñi mu indi woon en deux mille dix neuf ñëwaat nañ l'équipe israélienne bi nga xam ni dañoo màcc ci mbirum élection ci mbirum dëpp ak dippi ak a yàq euh, ci mbirum ordinateur ak ci mbirum processus électoral ñoo ñëpp euh, ñëwaat nañ ci fii ci Sénégal ils bien logés biir Dakar pour ñu waajal li nga xam ni mooy càcc gi léegi nag moom à la bu ñu jógee Sénégal yëpp jóg war a dem ci campagne électorale la ko dagg nu mu gën a gaawee parce que bu ñu xoolee bu mu xoolee dañ ko wax ni sincèrement ki nga xam ne da ko mandaté muy Amadou Ba du gañe euh, bu israéliens ñëwee nag indil ko li nga xam ne moom mooy document bi dañ ko xamal ni seen sa waa ji du gagné donc mu toogoon ne day arrêté processus électoral bi def ko ba décembre en attendant mu mun a suul Amadou Ba wutaat keneen koo xam ni moom mooy candidat am libéré Ousmane Sonko indiwaat Karim Wade tàmbalewaat processus bu bees. parce que jomaay arrangé wu ko comme nu mu koy waxee nee nañ jomaay ci seeni wax moo gën a sadik fuuf Ousmane Sonko du jéggale du baale ba mu jegee ci loolu gis ngeen la mu def jël affaire ya yóbbu assemblée nationale jiiñ ay magistrat de corrompu de corruption def lu muy def yëpp donc la France bokk ci ñu ko fitnaal bokk ci ñu ko attaqué bokk ci ñi ko wax ne ko il faut nga retourner mbir yi parce que la ñu waxante woon loolu nga waroon def mooy def ay élection ñun Amadou Ba la ñu protéger Amadou Ba ñu ngemb ñu def tout pour li ñu diggoon nga jox ñu ko cinquante et pour cent yooyu ñu dem suñu yoon ñu mun a wax ci waxu pétrole beeg gaz bi on a plus de temps ci noonu nag lu mu def loolu lépp nag ak pression internationale bi ñu def ci jéego yu am solo ne ko déet foog nga organiser ay élection nu mu gën a gaawee parce que le deux dañ foo war a jógee conseil constitutionnel aussi addu ci ne ko nu mu gën a gaawee choisiral ñu def ay élection nga jóge fi moom it ci ay waxam nee na euh, lu mu deful douze ans du ci six mois la koy def bu doon lu ñuy sàcc lu mu sàccul ci douze ans mënu ko sàcc ci six mois lu mu deful ci douze ans aussi mënu ko def ci six à sept mois donc il gagne donc ñu ne ko organiser ay élection donc euh, léegi kon programme ba mu jógoon jógte woon mu mujjul sotti mooy arrière mbir pour en plus de temps faire revenir Ousmane Sonko faire revenir ki nga xam ni moom mooy Karim wàdd et indi candidat bu mu soxla bu dul Amadou Ba boo xam ni dañ ko mën a dugal ci biir Euh, ku mel ni Boun Abdallah Dionne wala parce que Boun Abdallah jotoon na cee waxtaan ak moom bu baax a baax indiwaat benn bun Abdallah Dionne wala indiwaat keneen mais Amadou Ba xam na ni jàllul léegi nag depuis boobu euh, comme loolu la jógte woon problème boobu yàqu léegi moo tax il a décidé de laisser Ousmane Sonko en prison de laisser ki nga xam ni mooy Diomaye fay en prison et que même le fait de génne yu muy génne sur mille sept cent et quelques prisonniers politique cinq cent la ciy génne et quelques pour mun a calmer la tension sociale euh, tey nag ci communiqué conseil des ministres wax na évoqué na la décision du conseil constitutionnel ci aspect boo xam ni mooy dinaa def li ngeen wax nee na nag day finaliser processus électoral bi donc processus boobu nga xam ne dafa décidé woon ñu def benn reprise totale di processus électoral finalement la France ak nuñ ko bousculer nee na day continuer processus maanaam li mu yàqoon fa ñu nekkoon ca fa ñu tolloon nee na loolu lay indiwaat dafa ne woon da koy jaxase lépp la jaxase woon ne da koy tuur ñu lànk ne ko doo ko tuur donc France ne ko da nga koy indiwaat donc nee na euh, suba incha allah dinañ leen jox dat bi nga xam ni mooy élection yi mais jàpp leen ni Macky Sall euh, dina organiser ay élection avant le 2 euh, ci ndigalu kii nga xam ni mooy la France ci ndigalu la France ci ndigalu la France candidat yi nag quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp woo na leen ne leen ba xam da ngeen bëggu euh, processus bi ñu finaliser ko wala ñu reprendre quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ne ko processus bi dañ ko war a finaliser dañ ko war a continuer mais loolu lépp euh, c'est juste pour nalawal leen mais c'est la France ñoo décider ne ko da ngay continuer loolu nga yàqoon dañ koy continuer donc il a décider même tey ci communiqué bi de finaliser le processus électoral donc il y a plus de reprise euh, du processus mais de finaliser maanaam la ñu tàmbale woon la ñuy continuer donc ay élection dina am avant le 2 donc wax na administration bi euh, mooy ministère du finance la Sénat ministère de l' intérieur maanaam administration bi ñu préparer ñu jóg gaaw préparer les élections euh, date bi euh, mu fas yéene ko fixé avant le deux pour mun a génn dem yoonam waaye li ci lënt mu graaw a graaw a graaw graaw mooy boo leen seetloo am na benn lien bu leen Sénat joxoon boo leen demee doo leen ko fa fekkati boo leen cliquer sax doo leen ko fa fekk mooy 3 vingt point Sénat point sn donc dindi nañ ko dindi nañ ko ba mu set wecc sànni nañ ko loolu pour vous dire bien dodul sax euh, li nga xam ne moom mooy euh, fichier électoral bu deux mille vingt deux mille vingt quatre euh, ñi nga xam ne nag ñoom décidé na ko muy concertation boobu tel appel téléphonique kese la donc candidat yi dem. 19 lañ 19 ñooy dem 19 candidats ñooy dem ci élection yi dina organise élection avant le 2 ñuy wax sénégalais yépp ñu jóg taxaw lu doy waar doy waar doy waar la Macky sàll fas yéene teg sénégalais yi fichier électoral bi nag kenn jotu ci noonu lañ naxee ki nga xam ne mooy Amadou Ba bu Pastef ñëw na ñu woon ko ay carton carton yi fees dell xamal ko ni lii fichier électoral yi la lii kii la lii cartographie bi la lii nangam ak nangam ba def na ci vidéo sax jox leen waaye ba léegi gis ngeen joxu leen lien joxu leen dara euh, je pense que bien que Amadou Ba bu yoroon loolu joxe na leen ko bu yàgg mais dañ ko nax bañ ko naxee dañ ko nax nax bu doy waar sax lañ ko jox dara amu ci dara kees yooyu yóbbu ko fa lañ ko ko woon moom yóbbuwul dara dara dara dañ ko ko woon mu vidéo ko ne leen mi ngi nii mi ngi nii na dara amu ca dara amu ci booy dugg dañ naan la erreur dañ koo tëgg wëndeel bu day waar sax moom Amadou Ba parce que dañ ne euh, ñoom euh, parti politique populiste lañ ay nitam ñoom boo leen waxee rek ñu gëm donc ñu moom bu mu ñëwee it dañ ko nax te ñoom ña nga ca di reetaan naan tëgg nañ ko wëndeel woon ko ay karton mu video monté de jo jox gaaya ne leen jot naa lien bi euh, électronique yot naa nangam mais ba léegi gisu leen benn doomu aadama bu mu ko partagé wala bu mu ko jox mais bu mu génnee la xam ni li chinois la dara baaxu ci ñeneen ñi parti politique yi ñu ko yëgee dañoo daw ñoom tam di laajte ñu ne leen noo doucement rek comme que moom partem moo gën a bëri nit te wax ji bari na fa ñu dóor leen tëgg leen wëndeel jox leen faux lien jox leen lépp bu ñu dem mu nax ay militant am en attendant ñu calmer donc fii benn fichier amu fi dara amu fi lien amu fi dañ koo tëgg wëndeel pour mën a noppiloo ay nitam donc loolu Macky Sall moo ko def pour nax waa Pastef euh, à travers Amadou Ba mu tëgg leen wëndeel jox lien bu baaxut jox leen lépp lu baaxut wan leen ay karton nalawal leen ñi dem mu toog donc bu ñu ñëwee di laaj fichier bi aussi fichier bi doxul dañ ko dindi dañ ko sànni fële ci biti du sax fichier deux mille vingt quatre donc voilà euh, di leen wax ni euh, li nga xam ni nag ñoom la ñu jógtee waaw fichier bi doxut du boobu du boobu du boobu du boobu ñoom bu ñu rek boobu sax buñ ba fa newoon sax du boobu donc dañ ko nax dañ ko nax dañ ko nax nax bu metti sax loolu dañ ko nax moo tax yéen xam ngeen Amadou Ba jàmbaar fàq tëdd la bu yoroon fichier jox na leen ko bu yàgg buñ ko joxoon fichier bu mu téye bu baax jox na leen ko publier na ko bu yàgg parce que ba bërki démb la ko def depuis deux jours gisuleen leen fànn fu mu dugal lien ne mi ngi nii wala kaay leen aimé fii wala partagé leen fii donc dañ ko nax te moom après bu mu génnee la laal xool xam ni lii euh, euh, euh, fichier chinois la mais bu israélien bi joxuñu ko ko fichier chinois bi lañ ko jox on avance donc li muy wax ay dialogue inclusive concertation loolu yépp dara amu ci dara ba dara booloo jeex di woo sénégalais yi nag ñu jóg taxaw te bañ sàcc gi ñu dem ñu laajte fichier électoral bi Macky Sall yor fichier électoral bu Macky Sall yor bi mu jox Amadou ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba boppam bu APR di wax Macky Sall mu affiché fichier électoral bi parce que six millions de votants nga jël fichier électoral génne ko de moins de quinze jours loolu amul ci benn dëkk loolu c'est inacceptable inacceptable c'est pas c'est pas acceptable en fait donc un fichier électoral de six millions de votants nga génne ab fichier électoral jox leen ko ci dix à quinze jours c'est du jamais vu amul ci benn dëkk mooy li ngeen dul war a nangu parce que six millions ne peuvent pas vérifier seen tour ci moins de quinze jours ne peuvent pas vérifier parce que boo ñëwee dañ naan la c'est inacceptable dañ naan la mënoo dugg fii dañ naan la c'est inaccès inaccessible dañ naan la c'est pas accessible wala ñu la nit yu bëri ñoo ci nekk wala nit yu bëri ñoo ciy dugg donc ci loolu la ñu jógte waaw c'est inaccessible et c'est inacceptable donc di leen wax ni euh, ngeen waajal seen bopp Macky Sall finalement a décidé d'organiser des élections le plus rapidement possible avant le 2 et de quitter ce pays mais il a décidé il a décidé de voler les élections comme nu mu ko defoon en 2019 il a décidé aux abords euh, mu woote ki nga xam ni mooy Amadou Ba félicité ko ne moo gagné élection yi loolu bokk na ci seen programme dafa décider sàcc élection yi comme nu mu ko defee en deux mille dix-neuf avec ces israéliens waaye dafa décider daw ci RTS annoncé fa ne Amadou Ba moo gagné ay nitam waaye dafa décider ci ngoon gi woote li nga xam ne moom mooy Amadou Ba félicité ko ne naa gagné élection yi. donc ngeen jóg taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ne Macky sàll bëggoon na li nga xam ni moom mooy hold up mu cool mu arrière pour dugal Ousmane Sonko négocier affaire ba mu cool léegi nag dafa décider dem ak ñun ci élection mais def hold up électoral bu doy comme nu mu ko defee en deux mille dix neuf pour féliciter ki nga xam ni mooy euh, son candidat Amadou Ba ne moo gagné suñuy élection présidentielle loolu la fas yéene def loolu la bëgg a def. dafa bëgg a forcer ay nitam dem RTS c'est bien préparé pour l'instant ay nitam dem RTS annoncé ne ñoo fa gagné mu woo ki nga xam ne mooy Amadou Ba félicité ko ci li mu gagné élection yi donc loolu lépp nag di leen wax ni ngeen jóg taxaw mbañ sàcc gi xool seen tur yi ci fichier électoral yi sécuriser bureau de vote yi verrouiller ko mobilisez-vous lànk na étranger yi duñu voté parce que ay étrangers yu bëri lañ jox ay carte étrangers yu bëri bëri bëri surtout waa Guinée ñu sécuriser les votes sécuriser vote yi sécuriser bureau de vote yi bañ a nangu benn yoon dem ci benn bureau de vote ñu naan la waroo voté fii wala war a voté faa ngay wër foo war a voté ba doo voté donc di xamal ni Macky Sall léegi nag nee na day dem ci élection yi mais daf ko bugg a sàcc daf ko bugg a sàcc dafa lànk ne da ko bugg a sàcc dafa lank ne da ko bëgg a sàcc donc di wax sénégalais yépp de voter massivement de voter massivement contre Amadou Ba waaye de sécuriser les votes de sécuriser les bureaux de vote taxaw temb yor seeni gourdin taxaw ne ñépp képp ku ñëw di nga voter maanaam amul ñëw ñu naan la nekkoo ci fichier bi nekkoo fii wala nekkoo faa wala waroo voter ci bureau bi bureau ba la nga war a dem et cetera et cetera donc ñu taxaw temm taxaw temm taxaw temm farlu jóg ne Macky Sall du sàcc élection yi ba fajar mooy càppante ji dinañ ci topp fajar lañuy ñuy yeewu ba li nga xam ni moom mooy euh, guddi gi ñu toog taxaw bañ a dem benn yoon. loolu il faut ñu préparer wu il faut ñu jóg pour ñu def ay numéro def aussi li nga xam ni ay groupe euh, de sécurité de sécurisation du vote wala ñu def li mooy. Euh, campagne boo xam ni dinañ mën a def euh, benn ay comité comité de suivi et de surveillance des votes buñ ko deful nag Macky sàll risque de déclarer Amadou Ba vainqueur des élections présidentielles de deux mille vingt quatre au premier tour pour cinquante et un pour cent ci ay sàcc ngeen jog taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax de voter massivement de voter massivement donc benn mafia organisée jóg nañ taxaw pour sàcc élection yi jox ko Amadou Ba ngeen jóg taxaw ci loolu nag du ay wax moo koy gagné du ay dem ay élection rek moo koy gagné mais de sécuriser ñaari élection ngi nii yu Macky Sall ñàkk te da ko foqati ci loxoy sénégalais yi moom mooy élection deux mille dix-neuf dañ ko sàcc élection législative yi passé da ko sacc dañ koo gañe mais ñaari élection la yoo xam ni Macky Sall toog na fi euh, te da ko sàcc attention attention chers sénégalais ni Macky Sall sàcce élection yi en 2019 tëgg wëndeel ak Idrissa Seck noonu la Macky Sall fas yéene waat noonu la ko defee ci élection législative yi noonu la ko Macky Sall fas yéene waat defaat ci 2024 moom mooy hold up électoral sàcc ko jaay sañ-sañ woo Amadou Ba félicité ko média yi jóg parce que am na ay média yu bien yu ñu préparé mooy ay média de propagande yi nga xam ne dañoo fas yéenee jóg ne Amadou Ba gagné na élection yi ci forcing ci njaayum doole donc ngeen jóg ngeen waajal seen bopp ñu taxaw ñun ñëpp voté massivement protéger élection yi protéger bureau de vote yi ñu Macky Sall organiser ay élections yu transparente yu démocratique mais lii la ñu fas yéene bëgg a def donc ñu woo bépp sénégalais nga taxaw du affaire yi du dem voter rek ñëw ñibbi du dem voter rek dem toog ne ñëpp génne seen carte ne lii ñun kii lañ voteel non c'est de rester là-bas pas de bourrage pas de bureau fictif pas de mafia pas de sàcc pas de kii du voter fii pas de kii Euh, nekkul ci fichier bi attention attention Macky Sall va rejoindre ñi nga xam ne ñu ngi koy woo ci ay def élection il va faire il va organiser des élections avant le 2 avril et il est prêt à voler les élections et de déclarer son candidat Amadou Ba vainqueur des élections présidentielles 2024 donc lépp lu mu doon def média propagande yi aussi récupéré nañ xaalis bu mat sëkk di xaar pour déclarer Amadou Ba vainqueur ñoom ay complice lañ donc na sénégalais yëpp taxaw amul processus électoral boo xam ne dinañ ko nangu bu fekkee ay sénégalais dañu war a dem di voté ji ñu ne leen seen tur nekkul ci liste électorale bi bu fekkee ni sénégalais dañoo war a dem di voté ji ñu ne leen war a leen voté ci bureau de vote yi mu nekk si seen carte d'identité ñu bind nañu bureau de vote bii lañu war voté di wax ni sénégalais waruñu nangu ñuy def ay bureau fictif sénégalais yi waruñu nangu mu am ay bureau yoo xam ni amul ay représentant yeneen parti politique yi mooy opposition bi sénégalais yi waruñu nangu ay bureau de vote yoo xam ni ñoom ay dana am ay étranger ñëpp ràññee leen ñu yor ñu fees dell ci bureau de vote yi ne dañuy voter donc ñoom lii mooy pexe yu décider sàcc élection yi de cinquante et à cinquante deux pour cent ñëw jox ko ki nga xam ni mooy Amadou Ba Macky Sall euh, félicité ko ay nitu Amadou Ba daw ci RTS déclaré fa que ñoom ñoo gagné élection présidentielle yi donc ngeen taxaw ci loolu bu baax ngeen waajal ko de xam ni lii nga xam ni Macky sàll moom la fas yéene def gis nañ lépp xam nañ lépp te duñ ko ci bàyyi benn yoon te duñ ko nangu benn yoon te dinañ taxaw même bu laajee ñu boyal dëkk bi ba mu jeex dinañ ko def mais Amadou Ba ne sera jamais notre président jamais au plus grand jamais Amadou Ba ne sera jamais te duñ ko musa ndangu illa yow mi diin Amadou Ba du ñu jiite. te boobaa bu fekkee Macky Sall noonu la bëgg a génnee ci forcing boobu mu doon jéem a def mu cóol mu arrière mu bëgg indi ay pexe munul sotti mu bëgg ñu revenir at ci continuité euh, processus boobu ci bugga a sàcc def hold up électoral sàcc élection yi. organiser ko ci njaayam doole ci sàcc ci bourrage d'urne et cetera et cetera loolu moom moom mooy tàll réew mi mooy tàll dëkk bi parce que bu boobaa Sénégal moom mooy jeex na tàkk mooy yàqu na yaxeet mooy Sénégal yàqu na c'est fini c'est à vie c'est plus un pays mais boobu boobaa guerre mondiale dina fa am bu boobaa guerre civile dina fa am bu boobaa nag dinañ reyante ba jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk ba du ak deseti sax si 18 millions dootu fa deseti sax 8 millions de Sénégalais on est média propagande yi di leen artu di leen dànkaafu ne ñun pare nañ képp koo xam ni nee nga fi kii nga xam ne mooy Amadou Ba moo gañe dinañ boyal bépp média de propagande bépp média complice boo xam ni da nga ànd ak ci li Macky Sall wax doog di ko annoncé ba di daw di jiitu RTS ak ñeneen ñu ñu ñeneen ñëpp képp ku bokk ci ñoom média de propagande complice dinañ one est bu boyal ba mu jeex bu boobaa di ngeen gis leneen mu bu boobaa dinañ teg ñoom ba ñu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk donc lii mooy li nga xam ni Macky sàll bëgg na ko def moom mooy comme bërki démb rek dégg naa kenn ci ñoom sax ki ma doon wax lu mel noonu naan ma wëyi yéen est-ce que vous n'êtes pas malade ma ne ko lan lu mu ñëw non vous pensez que Macky Sall va sortir pour donner le pouvoir à Diomaye ma ne ko mais pourquoi non non non Macky Sall xalaatu ma ne ko da ngay kàcc Macky Sall du moom mooy joxe pouvoir c'est pas à lui de léguer le pouvoir c'est au peuple ñoo ko joxoon ñoo koy jëlaat jox ko ku leen neex mu ne mooy c'est ça qu'on va voir ma ne ko d'accord da ngay menacer on va voir ça Macky Sall ne fera jamais de passation euh, de de de de de service di jël mandat di génn ci pale bi di fa dugal ki nga xam ne mooy Diomaye Faye ma ne ko d'accord amul amul benn problème kon Macky Sall moom moom réew mi mooy choisir mooy dugal mu ne mu ne way ñoom ils disent que ñun ay opposition populiste lañ opposition propagande lañ wax rek la ñuy def waaye ñun ñoom moom TikTok ñoom moom nangam ñoom ñoom moom mbedd mi. ñoom ñooñ nag ñu ngi mooy waa euh, APR mooy leaderu APR yi d' accord mais on verra bien incha allah bu dee réew mi seen bàyyi ñoom la ko bàyyee fii dinañ ci am lu ñu leer donc di wax sénégalais yi daal mooy Macky Sall a décidé vraiment de continuer de finaliser le processus électoral li mu ko jaxase woon temps bi yëpp léegi nee na da koy finaliser da koy continuer woon administration bi gaaw a gaaw pour ñu waajal muy finance muy sénat muy ministère de l' intérieur maanaam pour ñu préparer ay élections présidentielles nu mu gën a gaawee léegi nag ñoom avec la France avec l' appui de la France avec l' de des lobbies euh, occidentaux euh, occidental du moins donc ils ont décidé euh, de vouloir faire un hold-up de voler les élections dappale d'appeler ba de le féliciter au premier tour dale dans les médias de propagande RTS et autres pour déclarer que nous avons gagné, couper l'Internet, toog taxaw di xaar sénégalais donc euh, di leen wax ni Macky Sall na décidé wul jóg ci réew mi organiser ay élections yu transparente yu libre yu démocratique dem yoonam décidé wu ko dafa décidé hold up sàcc élections yi jox ko Amadou Ba dem yoonam donc ñuy woo bépp sénégalais incha allah euh, ce vendredi ñun ñëpp ñu génn dans les rues à partir de quinze heures à la place de la nation des millions de sénégalais pour réclamer ay élections libres transparente démocratique ba pare ñu nit nañ am fulla laaj fayda di surveiller élection bi pare pour lépp comme Macky Sall ñëw ne nee na day dem ci élection bi donc na ñëpp sécuriser seen commune na ñëpp taxaw ak ay gourdin ak ay mbolde bu buggee guerre civile dina fi am ñun ñëpp taxaw ak ay gourdin ay mbolde ay jaasi ay paaka ñëpp ngembal ko dem ci bureau de vote yi bu fekkee ni dafa am da ñëw ñu la ay doo fi voté wala nekkoo ci liste bi wala nekkoo ci fichier bi wala tel nangam continuer nañ ko rajaxe nañ ko bombarder dóorante ay gurtaay ba mu jeex tàkk na deret ba tuuru na ñëpp nañ rey ñëpp waaye Macky Sall du fi organiser élection di ko hold di ko sàcc ne da koy jox Amadou Ba pour mu jiite ñu di ko xamal ni Macky Sall Amadou Ba du ñu jiite tey te du ñu jiite ëllëg wallahi gar suñu bakkan Amadou Ba Amadou Ba laa la wax du ñu jiite tey du ñu jiite ëllëg barke alxuraan barke rasulillah maa ko waat ci daraje Seydina Mohamed Macky Sall Amadou Ba du ñu jiite comme le candidat de la continuité du ñu jiite on est prêt à mourir bu boobaa nag amul taxaw fii dañuy jël sañuy avion dinañ ñëw foofu pour la guerre te on trouvera un pays en chaos indescriptible et bu boobaa du ñu taxawati ñun ñooy ñëw on prendra les armes et dinañ rayante ba mu jeex tàkk bu boobaa nag la ngay daw dina am la amoon Côte d'Ivoire ca boo dina am parce que ñun dinañ jël armes yi dinañ ñëw te dinañ guerre dinañ dugg ci camp militaire yi nañ ko bombarde dinañ jël armes yi dinañ jël bazooka yi dinañ jël kalachnikov yi te dinañ tiirante ba mu jeex tàkk incha allah bu soobee yàlla ñu la koy xamal na nga waajal sa bopp de xam ni sañu élection doo ko sàcc doo ko ëldëb doo ko joxe ñoo la gën a sadik ñoo la gën a féroce ñoo la gën a dee fuuf amuñu dara lu ñuy ñàkk yow yaa sàcc alal bi yaa yore ay milliards ñun yorewuñu fukki dërëmu sénégalais ñun dañoo faay ba doon li ñu doon donc yow bu ñuy rayante yow yaay ñàkk yow sey nit yi sàcc yow sey say milliardaires yi sàcc ñi nga xam dañu enrichir illicitement yow ak say baadoolo yi sàcc yow ak say xiif ñu xiifoon nga jox leen lu ñu lekk dañu topp la doon say xaj doon say bëy say mbaam xuux ñun bu boobaa amuñu dara lu ñuy ñàkk ñun bu ñuy même bu ñuy dem dañuy dem avec la patrie avec honneur avec dignité que ñun jóge nañ fi si réew mi ci monde bi parce que dañoo xeexal suñu réew bu boobaa bo ku amee lu ñàkk yow la te lu tooy bu boobaa ci yow lay jóge donc ñun pare nañ ñun pare nañ di wax bépp sénégalais ñu pare ñu waajal seen bopp ci élection yi Macky Sall di fas yéene def parce que dina fi jóge avant le 2 ne dafa bëgg a organiser ay élection ci ñu mu gën a gaawee ci mois de mars bi ñu mu gën a gaawee am naa suba dina ko wax peut-être donc lu mu gën a gaawee pour ñu song élection yi donc nañ ci taxaw nañ ci gar suñu bakkan ne Amadou Ba du fi jël élection yi du fi faqat élection yi du ñu nangu sàcc gi du ñu nangu guerre bi du ñu nangu mafia organisée avec la France donc euh, ñi ngi leen di ziar di leen bëggee bu wër di leen wax ni lii mooy lu ñuy waajal ñoom euh, wax ñu wax bi nag moom mooy pour ngeen waajal seen bopp ñu jógee ci état bu wax nekk ci état bu jëf jógee ci état bu menace jël nag armée yi taxaw fas yéene en découdre avec le dictateur jël armée yi taxaw fas yéene ñi nga xam ni mooy Macky Sall Macky Sall a dit à Moussa Fall de se préparer à quitter la gendarmerie donc depuis avant-hier Moussa Fall nitam yépp jël na leen jox na liste bi Macky pour ñu placer leen ci ambassades yi ak ci consulat yi donc Macky Sall day dem ak ki nga xam ni mooy Moussa Fall Macky Sall day dem ki nga xam ni ak ki nga xam ni mooy le général des des force armées mooy ñi nga xam ni euh, ñoom ñëpp retraité woon nañ leen mu yokkal leen donc Moussa Fall pare na fi Moussa Fall Macky Sall nee na ko takkal say bagage waajalal jox na ko liste ba pour mu jëlal ko ay gendarme yoo xam ne sale boulot lañ fi def ñooñu ñëpp dañ leen fas yéene placé ci li nga xam ni moom mooy euh, euh, ambassades yi ak consulat yi. donc di leen xamal ni dans quatre à cinq mois Moussa Fall ne serait plus là Macky Sall dafa fas yéene yóbbaale ko daf fas yéene yóbbaale ki nga xam ni mooy doomu ndeyam moom mooy euh, Mbaye Cissé euh, le le le général des forces armées. donc ñooñu ñëpp Macky Sall wax na leen ñu préparé wu ñu ngi waajal jël seen i bagage di takk di jël seen i nit yi liggéeyoon ñoom si sale boulot pour placer leen ci ambassades yi ak ci consulat yi donc euh, di leen xamal ni daal ñoom pare nañ. pour yàq suñu réew tas suñu réew bombarder suñu réew créer fi guerre civile dem seen yoon parce que créer guerre civile mooy bugg ñu forcer Amadou Ba mooy bugg def hold up électoral mooy bugg a sàcc élection yi teg fi Amadou Ba loolu mooy créer guerre civile loolu mooy créer guerre mondiale loolu mooy yàq réew mi yàqet doog dem sa donc di xaw di leen dànkaafu di leen artu ki nga xam ne mooy Moussa Fall ki nga xam ne mooy Mbaye Cissé le général Mbaye Cissé ki nga xam ni euh, moom mooy euh, euh, May Maysa Sele Ndiaye ñooñu ñëpp di leen xamal ni ñun le peuple sénégalais souverain digne intègre pare nañ ñun en découdre avec eux bu soobee yàlla donc di wax sénégalais yi mooy ñun taxaw ñu waajal seen bopp ñu xam ni mbiri du yor sa carte rek dem voté ji ñëw toog. di xamal ni on a affaire à un voyou à un bande euh, euh, un bande à à des mafias organisées mooy Macky Sall ak ses sales euh, son partenaire son état en complicité avec la France ñoo bëgg a semer le chaos dans ce pays ñoo bëgg a organiser ay élections de bandits pour mun a sàcc affaire def hold-up électoral jël réew mi donc di leen xamal ni. du carte kese carte la ak taxaw voté taxaw bañ fa bouger bañ a yëngatu jóg toog taxaw armée de gourdin ne ñu armée de jaas yi armée de paaka taxaw ne ñëpp dinañ dugg voté kenn du ñëw fenn ñu ne la doo voté wala euh, euh, déplacé nañ la fële wala yóbbu nañ la fële donc loolu la ñu jógte woon di leen ko wax di leen xamal ni Macky Sall décidé wul organiser ay élection yu transparente yu libre yu démocratique waaye bu ngeen ko gisee demee mu woote ay élection mu wax dat ba nu mu gën a gaawee parce que daf fee bëgg a jóge mais jógin bu ñaaw daf fee bëgg a jóge sàcc élection yi euh, woo Amadou Ba félicité ko et cetera et cetera donc pour le débat de Ousmane Sonko day génn wala du génn nee naa leen Macky Sall Euh, bu fekkoon processus boobu mu décidé woon bu mu njëkkee bu mu yàqee lépp bëgg a reprendre processus bi boobu dafa amoon bëgg génne Ousmane Sonko parce que ils ont peur de Diomaye fay plus que Ousmane Sonko ñoom ci seen i wax ne nañ Diomaye Faye day defante Diomaye Faye day faywante Diomaye Faye et cetera et cetera moo tax nañu surveiller Diomaye Faye sax surveiller wuñ ko Ousmane Sonko chaque jour ñu ngi dem ci Diomaye fay ci chambre am di ko visiter di ko palper chaque jour que jë fait Diomaye fay mu ngi subir ay pression yu énorme ci fa mu nekk gars yi ñu ngi fay ñëw ñu ngay yëkkati bagaasam ya yëre bu ci gën a ndaw ñu ngi koy faxas ñu ngi xool ba xam yoru portable donc Diomaye fay instant yi dañ koo seere ba mu men ba ba mu ba mu sës dañ koo sës ci miir bi Diomaye fay nokkeetul amatul jàmm amatul salaam donc ñoom Jomaay Fay moo leen dérangé Jomaay Fay moo leen arrangé wul te ñoom nee nañ comme Jomaay Fay day fayantoo donc ñoom ils ont décidé ne Macky Sall du jël réew mi di ko bàyyee Jomaay Fay waaye peuple sénégalais comme nu leen ko waxee moo digne et intègre te quand il votera pour Jomaay Fay quand Jomaay euh, Fay prendra ce pouvoir rien ni personne ne pourra l'arrêter bu soobee yàlla incha allah donc di woo toute l'opposition dans sa globalité euh, di woo le le peuple sénégalais digne intègre et souverain ñu taxaw reyante euh, bañ bàyyi la ñu doon def bañ a bàyyi lañ doon def nekkaat ci moom mooy nekk ci mbedd yi di manifester wu vendredi manifestation sur toute l'étendue du territoire national samedi manifestation sur toute l'étendue du territoire national et ñu continuer ko noonu di ba élection yi di mat te buñ fa jógee te ban processus bu commencé ay sàcc di am nañ jaxase lépp nañ bombardé lépp buñ bàyyi dara ndax loolu lañ bugg a jógte te musiba naaru lay bu dee lii ñu jógte nii lañu reeñoo toog fa wax ko yàlla niñ ci yàlla musal loolu réunion nañ ca ñoom ñaari fan yëpp ña ca pale ba di réunion ba deux heures du matin lañ fay jóge ba deux heures du matin lañ fay jóge Macky Sall bu mu ñëw ñibbisee ba léegi demaatul fenn depuis boobu mi ngi toog biir Dakar toog biir dakaar Macky Sall ñëpp xamoon nañ chaque deux jours day voyager bàyyi na voyager bàyyi na lépp Macky Sall toog na bagage jël na ko yóbbu na ko Marrakech ma nga fa ci këram nga ngandam maami euh, château pare na lépp mais dafa bugg a taal sañu réew mi boyal suñu réew mi sàcc ko jël ko jox ko Amadou Ba dem yoonam ak njabootam loolu la décidé décidé wul toog fii ci Mermoz dafa décidé bàyyi ay garde bàyyi fa gendarmerie bàyyi fa nangam ak nangam dem ci nga xam ne moom mooy Marrakech foofu la fas yéenee dundee foofu la fas yéenee continuer sa vie ay bag seen bagage yëpp ñu ngi foofu def nañ ko ci ay vol spécial yóbbu nañ ko fa dara desetu leen fii dañoo fas yéenee taal réew ma daw dem Marrakech toog fa ci wetu euh, le roi du donc di leen xamal ni ñun suñu réew nag kenn du ko tasaare kenn du ko boyal bàyyi fi ànd bàyyi fi safara xal ak doomu taal bëgg demee noonu dama ne le peuple sénégalais est souverain digne le peuple sénégalais moom mooy voté et incha allah bu soobee yàlla ñun euh, dinañ voté contre Amadou Ba contre ce système contre la continuité bu soobee yàlla di ngeen fi jógee bu soobee yàlla kon sénégalais ma leen di woo ci fulla ak fayda jom ñi ngeen meloon démb ak bërki démb ne doo leen nangu nooteel doo leen nangu xeetu toroxtànge di leen ñaan lillaahi wa rasuli taxaw leen taxaw leen buñ ne rek dem élection rek ngeen di yàkkamti oui élection élection élection dama ne taxaw leen élection dafa ànd ak sécurité élection dafa ànd ak transparence élection dafa ànd ak libre élection dafa ànd ak démocratie élection dafa ànd ak justice dafa am lu mu àndal am lu mu àndal donc bu ñuy dem ci terrain boobu mu ñuy woo na fekk ñun ñu taxaw bu baax ci bépp côté parce que nañ dem football yi nañ dem match nañ dem match nañ dem ngeen waaye nañ dem ma mu ne ok na dem ah da ngeen di waajal seen bopp dangeen ngeen di waajal seen bopp nee naa leen Amadou Ba amul nit amul population amul ku ko topp waaye depuis boobu benn wax lay wax benn wax ban wax la mooy nañ dem élection nañ dem élection ay nitam naan nañ dem élection ba ci saaga Macky xam nañ ni seen waa kër sax duñ leen voteel Amadou Ba xam na ni waa koñam duñ ko voteel Amadou Ba xam na ni waa dëkkam duñ ko voteel Amadou Ba xam na ni waa parcelle duñ ko voteel Amadou Ba xam na ni waa këram duñ ko voteel lan moo tax muy insister naan nañ dem lan moo tax ay nitam di insister ci média yi naan nañ dem nañ dem élection ba di si saaga Macky Sall sax ñoom ñi àndoon ak moom di ko toroxal France naan ko non no non doo ko arrière continuer ko nañ dem nañ dem nañ dem ci koo xam ne yorul dara du ay nit la am nit ñi bëgguñu ko nit ay sàcc la jaar na impôt domaine rajaxe ko jaar finance rajaxe ko jaar budget rajaxe ko ba tey mi premier ministre rajaxe fu mu jaar bin bintu tendance rajaxe sàcc la fa nekk daw donc ñëpp xam nañ ni Amadou Ba amul nit amul dara waaye nag ña ngay fas yéene def le maximum possible pour jël ko yóbbu ko ci élection yi donc fan fan la ko teg ci sàcc keese ci liñ ko gëmloo ni dinañ sàcc élection yi jox la maaye nag ñun Sénégal kenn duñ ko nangu ñi sàcc élection di ko ko jox on est prêt on est prêt et on est prêt on sera prêt et pare nañ incha allah pour matal mbir mooy kenn du fi sàcc élection yi kenn du fi sàcc élection yi bu soobee yàlla incha allah one love ina